yaa ayyuha alladina amanu een eh, gaa ñi gëm yàlla hmm. xéeféeri génn nañ kutiba farataal nañ aleykum seen asiyaamu koor kama kutiba comme nuñ farataalee koor alal ladina ca gaa ñi nga xam ne min qablikum njëkk nañ leen laalakum boo yeen tattaquna ngeen ragal yàlla yéen ñi gëm hmm. yàlla farataal na ci yéen xoor comme nu mu ko farataalee ci ñi leen jiitu woon lu ngir ngeen mën a ragal yàlla koor dafay damu bànneex yi nga xam ne dana dugal nit moo yàlla booy xoor bànneex yooyu mën naa damu ci yow su boobaa da nga mën a ragal yàlla mhm. waaye xoor it dégg nga dafay waral mucc si safara mhm. kon xoor pakk boo xam ne wala muccal si safara ak ci laa wax de te ragal yàlla it day musal nit safara moo tax xoor njëriñ nga mooy ragal yàlla mhm. yàlla na yàlla farataal na ci yéen xoor waaye du yéen jullit rek xeet yi njëkkoon ne dañ leen xoor xeet yi njëkkoon ni julli ñi xooree am na ñu ne noonu lañuy xooree ñu waaye daal koor moom jëmmi xoor moom yàlla farataaloon na ko ci mboolem xeet yi rek laa wax ay fan la maxlu daat ni lim weeru koor fanweeri fan la wala ñaar fukk ak juróom-ñeent yuñ fa man kaana ka nekk na min kum seen maritan daaji feebar awalaa safarin wala niki mu nekk ci tukki fa war na ko en datun ak lim min ayaamin ci ay fan waxara waxara yeneen ku feebar nag wala muy tukki na ba fan yooyu bu mu ko xoor ndax lislaam moom ko am ngant may ne la ngant waaw waaye nag tukki dox wàññi nañ wax waaw mooy tukki mu bu koor gi jeexee nag nga fay ko yeneen i fan jël yeneen i fan xoor ko kon weeru ko ngoog weeru koor a ngoog alquran nee na faratal de suratul baqara wa wana taala yàlla koy amee fa man shahida ku fekkee min kum ci yéen ashahra weer wi ku teewee weer wi gis ko fa yesumu na ko xoor mm-hmm. kon képp ku fekkee weeru koo rek te charte yi tax xoor war la dajee ci yow xoor war na la rek laa wax de kooku suratul baqara la wa qaala wana rasulullah yonent bi sallallahu mm-hmm. hadis baa ngoogu mm-hmm. nee laa naka yàlla tabaraka bani wa taala kawe na farada na siyaam ramadaan or weer koon aleykum ci yéen wasanantuma sunnaan lakum ñeel leen xiyaamuhu naafila ko yàlla moo farataal ci yéen xoor man maa sunnaal ci yéen naafila kon fa man saamoo ku ko xoor ngir wéyal farata yàlla wa qaamoo mu naafila ko ngir wéyal sama sunna imaanan ngir gëm ne yàlla xam naa te mooy borom moom lañu war a jaamu waaye man yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa yonentu lu ma tëral dëgg la waxti saaban ak sàkku yool xam ne man ak yàlla ku topp suñ digal rek jëlee ci tiyaaba hmm. ku def loolu ngir loolu hmm. xaraja génn na min ci bakkaaram yi ka yow mi wala datu ni ki bis ba ko juree ummoo yaayam hmm. yonentu nee na boo xooree weeru koor naafila ko rek bu weeru koor bi jeexee yow set nga wecc ci bakkaar yaa ngi mel ni yaa ngi door a juddu tey kon koora ngoogu fexeel mu raxasee bakkaar yëpp rawaaw soloo na ko ahmadu ahmad wan na ak na saay mucc ci bakkaar nag ku xam nu mu njariñ nga tëdd ca bàmmeel boo tëddee ci bàmmeel rek da nga xam nu mucc ci bàkkaar amee njëriñ mhm. waaye taqi bàkkaar ku xam nu mu méttee nga tëdd ci bàmmeel bis boo tëddee ci bàmmeel da nga xam ne bàkkaar métti na yàlla ñu ci yàlla musal waana abi hurayrata jël nañ ci abu hurayrata borom muus ma da doon yaram muus bañ tuddee ko borom muus ma yonentu tuddee ko ko radee yàlla gërëm allaahu yàllaanu ci moom ani nabi mu jëlee si yonent bi salla yàlla dol xew allaahu yàlla alayhi si yonent bi wasalama dol ko musal xaala wax na moom abu hurayrata ne hmm. man lam ya daa ku bàyyiwut xawla zuuri waxi mboosóor hmm. wala amal ak jëfee bi ci mboosóor fa lay sa nekku lillaahi di ñeel yàlla hmm. xaajatun benn soxla hmm. fi an yedanga ci mu bàyyi taamoo ñamam wa lekk bàyyi naan waaye bàyyi lépp lu bon yàlla yonentu ne dégg yàlla ci boppam waaw dafa bëgg nga bàyyi lekk bàyyi naan waaye dafa bëgg nga bàyyi caaxaan yi kon ku bàyyiwut waxi fen ak nar yàlla soxlawul bàyyi gim lekk bàyyi lekk ak bàyyi naan xiif rek la ci jëlee zuur mooy wax loo xam ne du dëgg caaxaane rek la dégg nga jëf nag jëf yu fen nag mooy jëf ju bon ju wuteeg lu yàlla santaane jëf ju yàlla euh, santaanewul rek ay nar la du dëgg léegi képp kuy def ci caaxaan ak i bakkaar nga waaw di wax lu dëgg ci weeru koor wi waaw di rambaaj waaw di yàq mbokk waaw di sos di def lu bon daal wala ngay jëw waaw wala lépp lu yàlla xaaye rek nga ci bëccëg weeru dégg nga di jëf lu yàlla aaye ci bëccëg weeru koor xoor nga gaaw a yàlla nanguwut bàyyi gi nga bàyyi lekk bày gi nga bàyyi naan yàlla soxlawul ko ndax amul la benn njariñ mm-hmm. kon xiif la kon yow mi xoor fexeel boo bëggee sa xoor nangu mm-hmm. sa bi xooraale mm-hmm. bët bi xooraale nopp yi xooraale tànk biir bi xooraale loxo yi xooraale pour mu baax parce que bu ci def lu ñaaw rek jëfi jëfi fene ngi noonu jëfi fen mooy jëf joo xam ne du yàlla dëggalu ko baaxut làmmañ bu waxee lu ñaaw waxee ko li gën a bon nag mooy nit ki jël lu mu gën a bëgg di ko jox noonam mm-hmm. te xanaa koy nit bu nit bu waroo ñàkk fayda ba pare di jëw nit ñu jël sa xoor dem jox ko ko mm-hmm. hmm? kon boo waree téel sa làmmañ axrajoo génn naa di wal buxaari buxaari moo nettali xadis bi mm-hmm. wa waaw bu daaw la bu daaw la woon na ak na waan abi hurayra jël nañ ci abu hurayra tade yàlla gërëm ci moom ani nabi mu jël si yonent wa sallam qaala yonent rubba saayimin bëri na aji xoor laysa nekkul lahu di ko ñeel min siyaami ci illa al juunu mooy xiif wa rubba qaayimin bëri na aji naafila laysa nekkul lahu di ko ñeel min qiyaami ci illa sahrul mooy foog mooy ñàkk nelaw ndeysaan yàlla soxlawul jëf ju kenn mënut mm-hmm. jëf ju soxla yonent bi nee na bëri na koo xam ni foo ko fekk ma ngay xoor fekk xiif rek la ci jëlee ndax làmmañ bi ma ngay wax lu bon cër yaa ngi def lu bon tànk yaa ngi dox jëm fu bon bët yaa ngi xool lu bon nopp yaa ngi déglu lu bon biir bi mu ngi cee dugal lu bon awra ba mu ngi cee def lu bon mu taxaw ne dafay dëkk koo xoor yàlla ne ko soxlawuma bëri na kuy naafila naafilaam nga ñàkka nelaw rek la ci am nelaw yu bëri ndax lan ndax bàkkaar yu bëri yi mu nekkee ragalul yàlla te innama yataqabbalu llaahu min al mut min al muttaqiina ñii yàlla di nangul mooy ñu ragal yàlla loo ci déggee ah. ki ragalul yàlla jëfam yàlla nangu ko mm-hmm. ragal yàlla nag mooy nga def ndigal di bàyyi tere yi mm-hmm. doomu aadama boo gis mu ñemee xëtt tere yàlla yi jaamu yàlla mi bu neexee neen yàlla soxloo mm-hmm. ndax ragalul yàlla deful ndigal yi bàyyiwu tere yi jël benn jaamu yàlla ne nekk na ci yàlla na ko faale mu mën de li ngay def yëpp jëriñu dara moo tax ci hadis bi ci téere bi indi na hadis boo xam nit koo xam ne dafay jaamu yàlla di def lépp waaye nag wuy usi mu yor dëkkandooram ñu ne safara la jëm rawaaw net na hadis boobu ibnu maaja ibnu maaja ak ahmad ak wal xaakim ak bi sanadin si sanad saxiin bu wér sanad mooy ñu nettali hadis bi kon yow mi nga xam ne yaa ngi sonn ci jaamu yàlla fexeel bàyyi yeneen mooy yàlla yi mhm. fexeel di def yeneen yi la war pour yàlla door laa nangul affaire bi du ay caaxaan de udxulu fi silmi kaafatan la yàlla wax yéen ñi gëm yàlla dugg leen ci lislaam ci seen mboole mi cër ak mboole mi santaane cër yëpp nañ dugg ci lislaam bët bi na dugg ci lislaam di topp ndigal yi di bàyyi tere yi làmmañ bi na dugg ci lislaam di wax lu baax di moytu lu bon bët yi na dugg ci lislaam di xool lu baax di moytu lu bon nopp yi noonu biir bi noonu tànk yi noonu loxo yi noonu dégg nga mboolem sa cër yi rek ba xol bi noonu mhm. waaye man man sama laama ñu dugal naa ko ci lislaam maa daq waaraate maa daq def lu baax mhm. maa daq wax lu baax kon mhm. dégg nga waaye nag sama bët moom lu bon rek lay seetaan wala sama nopp yi lu bon rek laa ciy déglu mhm. wala boog sama awra bi lu bon laa ciy def yow sa waaraat yi amul benn njëriñ mhm. moo tax yàlla ne laysa yàlla ne yàlla ne atamuruna naasa bil birri wa tansawna anfusakum bu fekkee yéen defu leen lu baax kon diglewu leen lu baax mhm. loolu lay teg atamuruna kooku istifham la gu ànd ak laajte gu ànd ak saxal mu dafay dàq bu fekkee yaa ngi digle lu baax waaye yow defoo lu baax yàlla nee na yow woo lu baax diglewoo lu baax parce que defoo lu baax yaa ngi dégg ndax lan ndax sa bi moo dugg ci lislaam mais seeneen cër yi duggul ci lislaam kon doomu aadama pour mu pour mu mucc dafay baax mais man yii laay def yii def mu ne yàlla bu bëri yërmaane la nangam nangam demeewu noonu de demeewu noonu da ngay góorgóorlu de yàlla na duggal ci lislaam ci sam mboolem cër ak mboolem atte mi loolu la yi ngay gis ñu xew ni yi ngay gis léeg-léeg naan nañu atte atte nangam muy atte lislaam réew moo xam ne yenn atte lislaam lañ ci topp yeneen at yi topp mu ci lislaam loolu mooy attee la loolu attee caaxaan la lislaam da koy topp ci lépp wala nga ba moom soxlawul ku jël lenn ba lenn li atuminuuna bi baadil kitaabi wa takfuruuna bi baadil ndax da ngeen di gëm yenn téere yi weddi yenn yi yàlla nee na fa maa jazaa'u man yafalu zalika minkum yéen ñi nga xam ne da ngeen topp lislaam ci côté ba ko ci côté gëm yenn yonent yi weddi yenn yi luy fay ga illaa xisyun fi lxayaati dunia da ngeen am gàcce ci àdduna mm-hmm. moo tax ku ñoo gis ñuy topp euh, leen lu baax leneen lu ñu sàggane ci gàcceeru lañ jëm réew moo gis ñu ne yenn at yi lislaam lañ ci topp yeneen yi toppuñ ko ci ci gàcceer rek lañ lañ lañ la ñuy dëkk ci àdduna wa yowmal nag yuradduuna ila ashadil azaabi yowmal qiyaamati ñu fay leen mbugal bi gën a métti alquran waxaan na ne ulaakumul kaafiruun xaqan ñun ñëwee wéri dëgg kon yow mi bëgg yàlla nangul la laa bëgg wax boo xoolee xadis da xadis dangay xool maanaa li mu bëgg wax bul xol yeex bi rek yow mi bëgg yàlla nangul la nekkal julit pire nekkal julit sa lamañ nekkal julit say cër bët yi nekkal ci julit topp ndigal yi bàyyi tere yi lamañ bi nekk ci julit topp ndigal yi bàyyi tere yi di wax lu baax bët noppi nekk ci julit bul déglu ay caaxaan ak i fenn ak ay jëw bu nit ñi jëw sax nga toog di déglu yaa ngi ñëw ma yem am nga bàkkaar loxo yi nekk ci julit dimbalal doomu aadama bu leen ci lor tànk yi nekk ci julit bul dox mukk jëm fu naqat yàlla sawara bi nekk ci julit lu yàlla santaane nangul mu neex mu naqadi lii mooy lislaam boo ci nekkee yàlla nangul na la booy naxante nag yàlla bàyyi la rek yàlla moo dàq moo daq delloo naxante yëpp mm-hmm. Uh, laa yastaadu bihim wa yamudduhum fi tughyaanihim ya'mahuun yàlla nee na gars yi dañuy ñëw fi di ma di ma jéem a nax yàlla ne laa yastaadu bihim man tamit dama leen delloo seen naxante googu nu ma leen koy delloo dama leen di bàyyi di leen may jàmm yaakaar ñoo ci nekk bis ñëw rek ma fudd seen digg yàlla ku mu fudd seen digg nga yëg ne métti na mm-hmm. yàlla ci yàlla musal kon yow mbokk jullit yi góor góorgóorlu ci topp yàlla si say mboolem cër mm-hmm. pour yàlla nangu la bu dul loolu mën naa am coono rek nga jëri ci li nga nekkee waan abi hurayra jëlee leen ci abu hurayra radiyallahu anhu yàlla ko yàlla gërëm ani nabi mu jëlee si yonent bi salla yàlla doon xew allahu ala alayhi si yonent boobu wasalaamatu alaykum musal yonent baa ngoogu mooy koo xam ne nii maanaam mooy soppee bi yàlla bi xaytu yàlla bi ki yàlla bëgg mu gënoon taaru ñëpp gënoon baax ñëpp gën a rafet ñëpp jikko gën a rafet ñëpp askan gën a gën a gën set ñëpp gën a leer ba gën a leer jant bi loolu yonent rek sallallahu alayhi ko def dégg nga puso réer na ko ci néeg bu lëndam yonentu ne tell puso ba feeñ mhm. ndax leeru kanamam mu saddal ko bayti bi wa malo min ka lam tara di nisaay dégg nga wala boog wa malo min ka mhm. lam tara qatt ay aynun mhm. wa akmalu min ka lam tara di nisaay ku rafetee ni yow bët mosu koo gis ku taaroo ni yow ku matee ni yow jigéen mosu koo jur xuliqta mubarra'an min kulli aybin ka annaka qad xuliqta kama tashaaw xasaana ko way day Aysatu sadal ko way woowu ne ko bala yàlla di bind daf laa bind setal la ci mboolem ay ay bi dafa mel ni yàlla dafa xool ni neex mu bindee ko ñu ne déedéet yonentu yàlla dafa xool ni neex yàlla yàlla bindee ko moo tax mu rafet dégg nga ba pare mu ne ko jigéenu Sarayxa yi gisoon Yusufa di dagg seen loxo yi dañ laa gisut wallahi buñ la gisoon duñ dagg seen loxo yi seen xol yi la ñuy dagg waaye yonentu dafa ànd ak jalaal kooku mooy soppe bi yàlla bi yàlla dafa sant mbindeef yi ñu julli ci moom mbindeef yëpp baa xam nga ne lépp a gëm yàlla wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi lu mooy ñu réer ci doomu aadama yi ak jinne yi ñooñu rekk gëmul yàlla waaye bu dul loolu alam tara anna laa yasjudu lahu man fi samawati wa man fi ardi wa shamsu wal qamaru wa nujumu wal jibalu wa shajaru wa dawaabu yàlla nee na lépp nga koy sujootal yasjudu lahu man fi samawati wa ardi tawan aw karhan lépp a ngi si yóotal yàlla mu neex leen mu naqadi leen kon lépp gëm na yàlla mm-hmm. yàlla na def ne yaa ayyuha alladina amanu ñu gëm waxut ñi de na nit ñi kese la waxut ci na jinne yi kese la daf ne yéen ñi gëm yàlla yëpp sallu alayhi julli si julli leen ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallimu ngeen sëlmal ci moom kon kooku ñëpp ñoo ñoo mm-hmm. war a julli ci moom hatta jamaat lépp war a julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy soppe bi yàlla bi yàlla ne gis nga man mi nga xam ne dara man amul amul may sant man maa koy njëkkee damay julli ci yonent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne maay seen buur hmm. man maay kilifa gi hmm. man maay ki nga xam ni waruñ maa sant dara hmm. ma ne man maay njëkk julli ci yonent bi ay yéen yéen ñi des kon julli leen fu yàlla jullee kay xanaa kenn jàmbur bu ba fu sa buur di jullee noo yow looy seetaane moo tax julli si yonent bi nit ñi ne yaakaar nit ñi rek ko war def fekk déedéet lépp ko war def ndax yàllaa ko njëkkee yàlla gi nga sama soldaar yi eh, yéen soldaar yi malaaka yi eh, julli leen si yonent bi malaayikatoo julli leen si yonent xam nga ko du moromu kenn de ku ku mos a am teraanga gu mel ni sallallahu alayhi wa moo tax foo déggee turam waxal sallallahu alayhi wa na ku nay mooy ku dégg sama tur te julliwul ci man na mooy nay dëgg yow mënoo joxe ba joxe sallallahu alayhi wa sallam gi nga xam ne yàlla sax joxe na ko lu yonentu boobu wax xaala wax na te lu mu wax dëgg la yonentu lu mu wax dëgg la nee na isa asbaa bu xëyee ahadukum kenn seen yow man ab bis saa yi man di aji xoor falaa yarfus bu mu becc maanaam bu mu sëy kon sëy dafa yàq xoor wala yejhal bu mu réer maanaam bu mu def jëfi ku réer ku xoor bu mu def jëfi ku réer mu saaga bu mu xuloo bu mu fen bu mu jëw bu mu xool lu xaraam bu mu ko déglu bu mu dox dem fa ndax yooyu yëpp jëfi ku la ko yow mi xoor sàmm sa bopp nga ne ko léegi bu nit ñëwee nag def la lu bon ah te delloo lu bon jëfi ku réer la nu may def mu ne bu ko ko delloo fay nim ruum nem as cam caatamahu ŋàññi na ko aw xaataloo wala mu xeex moom fal yaqul na wax ne inni naka man saay aji woor laa inni naka man saayimun aji woor laa yonent ne ko man damaa woor bu nit saaga la ci bëccëg weer koor xas la bëgg dal ci kaw wala mu xeex wala mu ñëw di xeex ak yow ne ko man damaa woor nekkul ne dama la ko mënu delloo de nekkul ne dama amul kàttan de waaye damaa woor du ma la ko delloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii la santaane li gën nag mooy nga taxoo xoor xoor lan mooy jàpp bàyyi yu bon yi rek bàyyiwaale yenn bànneex yi doomu aadama nag dafa war a dëkk ci loolu dafa war a dëkk ci xoor ak baatin gi xoor ak mooy moom jàpp na bàyyi lépp lu yàlla lu yàlla gërëm lu yàlla gërëmul daal moom bana ko mooy xoor googu xoor googu ko xas xoor doo doo doggati ba laa yow mi diini fexeel xoor xoor googu su boobaa yow du weer rek waaye lu dul weer koor doo saaga doo xulo doo xeex damaa woor rek ngay wax damaa woor damaa woor gën du làmmañ moo koy wax na ko jëf ji na jë làmmañ bi wax ko gaa baax na waaye na ko jëf ji wax mu saaga la nga ne teg fekk sa jëf mu naan man damaa xool kon saaga yellul ci man mu dóor la nga reete fekk sa jëf ji mu ngi naan man dama xoor kon dóor yellul ci man di dóorante yellul ci man mu jël saalal nga mën a fajante moom nga seetaan ko fekk jëf ji mooy wax naan sa xaal mu ngi naan damaa xoor kon na xaal bi di wax ne damaa xoor dégg nga fexeel nag xoor xoor xoor gu dëggu ga rawaaw nett na ko al buxaari buxaari wu muslim ak muslim ñoom ñëpp génn nañ xadis bi ak tirmisi ak abu daawuda ak nasaayi weeru koor ngoogu ci gàttal boo ci nekkee li gën mooy nga sori lépp lu bon bu dul loolu rek koor gi manqué na amaana sa yàlla du ko nangu wa qaala woon na rasulullah yonent yàlla bi salla yàlla dool xew allahu alayhi wa sallam wa sallama dooli ko musal yonent bi nee na te lu mu wax dëgg la xaw ma kuy wax lu xamul waaye yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokkut ci moom lu mu la wax dëgg la lu mu def tamit dëgg la lu yonent boobu waxati nee na inna lillahi naka ñeel na yàlla azza noot na wa jalla te màgg na fii kulli laylatin ci bépp guddi min ramadaana ci weeru koor sitta miati alfin juróom benn téeméeri junne atiqin yuñ goreel min annaari safara kon weeru koor weeru xewal guddi gu nekk yàlla dana goreel juróom benn téeméeri junne nit ñu waroon dugg safara mooy leen yéen goreel naa leen léegi aljana ngeen jëm téeméeri junne ñaar téeméeri junne ñetti téeméeri junne ñeenti téeméeri junne juróomi téeméeri junne juróom benn téeméeri junne loolu mooy mooy mooy trois millions nit boo ko doon compte ci kii nii juróom benn téeméeri junne nit ñi waroon dugg safara guddi gu nekk yàlla jël lu toll noonu jéggale waaw bu fekkee weeru koor ñi ñëpp yàlla dana leen jéggale yow nga xoor ba weeru koor bi jeex yàlla jéggalul la nga dugg safara ah yow ñàkk nga sens mm-hmm. xéwal gu yaatu gii ku ci xajul kooku ñàkk na sens kon fexeel profité ci weeru koor bu weeru koor bi ñëwee balaa muy jeex ngel loo néew néew néew néew sens xanaa nga bokk ci ñu yàlla goreel sax boo bokkul ci ñuy yëkkatil daraja xoola mu ne fayda kaana bu nekkee axiru laylatin mu jëggu digga antaqa goreel na allaahu yàlla bi adadi man mada ci lii muy paas fukki fan ak juróom-ñeent yëpp li ci yàlla goreel guddi gu mujj ga ci weer dana goreel lu toll noonu bis bu nekk juróom benn téeméeri junne nit téeméeri junne ba muy juróom benn yoon yàlla dana ko goreel guddi gu nekk guddi gu mujj ci weeru koor nag lim goreel ci weeru yëpp mu goreel lu toll noonu ci guddi googu ah waay waay waay waay yërmande gi yërmande gi موم لا باي واخ سي بيتم فجاون كهذا لم يدق عن قديمه من يونت بي دراجه جو مل ليغا خام مباخ غو ياتو ني دغ دغ مباخ غو دي خات غو خات موك سي كوي ليغي ياكار ناني ليغا ياتو من ميغا خام ني ليغي لا لا خام خنا دو مسيدان ايتمي في خيل نك ويرو كور سلسان حالن فجاهم كهذه ولك هذا لم يدق عن قديمه يالا دراجه جو مل ليغي ديف سي ويرو كور xanaa nag du xat ci man mi nga xam ni maa ngi góorgóorlu ngir yow di la man jubum ma mataluma sax waaye maa ngi góorgóor boo góorgóorlu yàlla boole ci ñu muy jégal rawaaw nett na ko al bayhaqi bayhaqi moo nettal xadis bi ñu ngi ci kor ba léegi waan abi xurayrata jëlee nañ ci abu xurayrata lu bari xadis la noonu yàlla yi ñu ngi koy jam di ko xas di ko ŋàññi te wali bi yàlla saxaabaam yonantu la sallallahu alayhi wa sallam moom da daan wax ne li tax ma bëri xadis mooy nit ñi dañ laan soxla woo marché ba ak commerce ba man ma doon taq ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam daaw ma tàqali koog moom damaa naqadi woon xel moo tax kii sa ngóog yonentu sallallahu alayhi wasallam moo ko njëkk a defar Abu Hurayra dafa naqadi woon xel lu mu dégg fàtte ko mu jàmbat ko yonentu yonentu jël yére bi dégg nga dégg nga taf ko ci boppam jël yére yéreem la ko jox ne ko taf li jël yére bi nga taf ko sa bopp mu jël yére bi taf ko ci boppam yàlla may ko lu mu déggati man koo mokkal ab yére de ci la ko yonentu defal kiis bi def ci barke li mu ciy def rek yére bi am barke mu ko taf ko sa bopp mu taf ko ci boppam bo lu mu déggati mokkal ko yére yére ci la ko kiis ba moo waral du fàtte kooku mën naa mokkal xaalis yu bëri jëlee ci Abu Hurayra an nabi mu jëlee si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala yonentu wax na ne idaa jaa bu dikkee ramadaan weeru koor futihat ubbi nañ abwaabul jannati bunti aljana yi maanaam weeru koor bu ñëwee yàlla dafay ubbi bunti aljana yi mooy yàlla dafay ubbi bunti yërmande yi ndax aljana du dara lu weeru koor bu ñëwee looloo sàkk mu tër rek sàkk ko ci weeru koor yàlla mën na la koo jox ndax yërmande yàlla yëpp yàlla ubbi na ko yow mi bëgg wilaayatu yàlla ubbi na buntu wilaaya yow mi bëggoon alal ci koor gi yàlla ubbi na buntu alal bëgg xam yàlla ubbi bunti xam-xam ci weeru koor bi yow mi bëgg wërsëg yàlla ubbi ko yow bëgg wér yàlla ubbi na ko yow mi bëgg euh, gudd yàlla ubbi na ko loo doon sàkku mu të ko ñaan ci weeru koor ndax yàlla dafay xool lu nit ñi soxla yëpp ci yërmande mu ne mu ngi nii waaye nag ku sàkku mooy am ñam buñ ko taajoon fii ku lekku dana dana suur ku lekk mooy suur kon weeru koor bunti yërmande yi ubbeeku na waaye yow mi góorgóorlu di gaarlu yërmande yàlla yow la ci yàlla di jox koo xam ne soxlawul yàlla joxu ko dara yàlla kanaa xamu ko am fulla la moom moo ne man ahaba liqaa laa ahaba llaahu liqaahu wa man lam yuhibu liqaa laa lam yuhibu llaahu liqaahu yàlla daf ne ku bëgg a dajeeg yàlla yàlla bëgg naa dajeeg yow waaye ku bëggut a dajeeg yàlla yàlla bëggut a dajeeg yow moo ëpp ñëpp fulla ku ko soxla aywa ñëwal moo la gën a soxla waaye boo ko soxlawul moom soxlawul la yàlla noonu la mel moo tax booy daw di ñëw ci moom mën ngaa wax ne moom day naaw ñëw ci yow booy eh, raam di ñëw ci yàlla muy dox ñëw ci yow ngay dox di ñëw ci moom muy daw di ñëw ci yow lépp loo def pour jublu yàlla yàllaa ngi def lu ko gën a pire pour yegg ci yow xanaa nag xanaa nag yow jaam bi booy wuuti yàlla yàlla di la wut bu yàggee da ngeen dajee xanaa boo dajee ak yàlla nag nga war a am beneen yëg-yëg bu bokkut ak loolu na yëg démb moo yegg ci am na de dégg léegi nag yàlla moomu dégg nga su weeru koor jotee dafay ubbi bunti aljana yi maanaam bunti yërmande yi waaye kuy wuut yërmande moo koy am noo koy wuutee jaamul sa borom bu baax ci weeru koor bi yitteewool li yàlla bëgg ci koor gi nga def ko li mu bañ nga bàyyi ko mais dee ñaan yàlla say soxla su boobaa da gis ne danga ko am waxuli waxuli xat ñu tëj abwaabu naari buntu safara weeru koor bu ñëwee yàlla dafay tëj buntu safara luy loolu mooy bunt xay yi ak musiba yi ak natt yi yàlla daf koy ferme ci weeru koor ñàkk yàlla tëj na bunt ba fitna dugg safara dégg nga gàtt fan dégg nga ñàkk xam-xam réer sori yàlla yëpp yàlla daf koy tëj nga xam ne dana koo xam ne defoon na lu ko waroon xalak sa waaye xalagut ko yàlla xalagut ko ndax weeru koor la musiba gi waroon wàcc yàlla tëj na ko yaa ngi def lu la war a rek ci weeru koor sa yàlla seetaan la xalagul buñ tëjee bunt yooyu nag ci biir weeru bi booy ñaan yàlla ne yàlla bur ma tëjilati bunt ñàkk ndax tëj nga ko léegi yàlla mën na koo tëj ba faw ne ko yàlla bur ma tëjilati buntu texaat yi yàlla tëj na ko ba fow nga ne ko yàlla maa ngi nii ci keer koor gi tëj nga buntu réer yàlla bul ma ko tëjilaat yow yàlla tëj nga buntu sori la yàlla bul ma ko ubbilaat noonu ngay def ci koor gi parce que yàlla tëj na bunt yu bon yi kon yow góorgóorlu ngir ba buñ la ko ubbilaat te soo góorgóor rek yàlla du si tëj bunt bu bon ba fay di ko ubbilaat euh, dégg ta fekk def nga li nga war a def wasu fi ñu tënk shayaatinu seytaan yi maanaam seytaan yi dafay néew doole ci weeru koor du am kàttan parce que parce que xay yàlla tëj na ko bu yàlla tëjee xay seytaan du amatu liggéey parce que seytaan luy rôlam indi xay xëy yàlla fermé na ko ne ne du génn ci koor gi xam nga koor lu réeré kon seytaane da tënk nañ ko bañ tëjee xëy rek lañ xew seytaane ndax lan ndax seytaane amul lu muy liggéey ci weeru koor kon ñu bëri dëgg-dëgg seen bànneexu bakkan moo leen xalak rek ndax weeru koor dana ñëw nit di def yu bon yoo xam ne nga yaakaar ne sax kii koor ak ñàkk xool moo yem ci man moo yem ci moom lu tax parce que bànneexu bakkanam moo ko noonu waaye du seytaane bëri nañu tooñ seytaane fekk seen bànneexu bakkan lañ topp kon weeru koor googu bunti yërmaane day ubbeeku bunti xay yi tëju seytaane dootu amatu liggéey loolu lay boobu di juñ rawaaw net la al buxaari buxaari wa muslim a muslim wa qaala wana ali yaa nekk moom asalaatu xol wa salaam a mucc man aftaraku dog yow man ab bis min ramadaana ci weer koor bila usrin ci lu ngànt lam yaqdihi du ko fay siyaamu daari xoor jamono yëpp wa in saamahu di la woorlo kon boo gisee ñaan la boo tayee dagg na kafaara ñaari weer kooku loolu dafa mënul ñàkk waaye taxul nag nga fay li nga def boo daggee benn bis ci weeru koor te yaa ko tey boo xooloon li des jamono yëpp taxul nga fay ko maanaam tiyaaba ba nga amoon ci bis boobu xoor lu toll yëpp mënul tax nga am xam nga ne weeru yaa ngi seen xadis gis nga bis bi nga xool ci ba nga cee am boo xooroon lu dul jamono lépp sa jamono lépp nga xoor du hmm. tax nga am tiyaaba gu toll ni bis boobu loo gudd gudd fan nag kon fexal profito fan yi koor gi nga woor ko ndax fan yooyu day am bonus benn fan ba la nga cee woor la nga am ci tiyaaba mënoo koo am ci lu koor dina da ngaa woor sa jamono yëpp loolu la bi dara junj teel nga hadis bi hadis bi dafa am ay xam nga léeg-léeg da am fan yoo xam ne boo jëndee crédit da am bonus bu bari weer koor noonu la fan boo xoor rek ëpp na xoor jamono lépp ci tiyaaba moo tax boo daggee benn bis ci weeru koor xool sa jamono lépp du tax nga nga am tiyaab ak lu toll ni bis boobu tax nga fay bis boobu Allahu akbar xadis boobu rawaaw nett na ko tirmisi tirmisi ak nasaayi ak nasaayi wa ibnu maaja ibnu maaja wa ibnu xuseyma ak ibnu xuseyma xadis bu mujj ci bunt bi mooy waan ibnu abbas jëlee nañ ci ibnu abbas radiallahu anhu maa yàlla gërëm leen mu ne ural islaami buumi islaam wa qawaidu diine ak ponki diine salaasun ñett lañ lislaam du dara lu mooy luy jokkale diggante jaam bi ak borom bi ñu nërale ko buum ndax buum ci ngay mën jàpp xéeg fi nga bëgg a buumi lislaam ak poto yitee lislaam ñett la juróom la waaye yii daf cee mënul ñàkk bi si njëkk mooy shahadatu an laa ilaha illallah seede na amul benn buur ñu war jaamu illallah lu mooy yàlla moom moo njëkk wa salaatu ak julli mooy ñaareel ba wa sawmu ramadan ak woor weer koor mooy ñett ba yi lii ñëpp ko man xaj man naa mu amoo alal amoo kattan azaka man naa amoo kattan waaye lii moom ñëpp mën nañ ko moo tax yii moom mënul ñàkk yi daal mooy buum yoo xam ne boo ci jàppee te moom rek nga man yegg ci yàlla am ngër maa dem man taraka ku bàyyi waaye datan benn minut ci yii foofu moom kaafirun héeféer la su fekkee daf ko weddi nag hever la bu dee gëm na julli te bañ ko def ñu dagg doq nga bu waxtu bi desee benn rak o her koor bañ ko def xaar ba yéen rek des bu nangut ho ñu dog rey ko hajit ku ko bañ def ñu bayal ak yalla ko mom duñ la ki mm, asa ko ko bañ def ñu xex yow jël ko dégg nga loolu mooy àtte ba la ilaha illallah ku ko bañ wax mom dugg hever nga mënoo dugg ci islam waaye ku ci wedd ben wedd na julli bokku ci islam xor aj bokkut asaka bokkut xéeféer nga génn nga ci lislaam xéeféer mooy weddi luñ xam ci diine mu ne fàng lu ñëpp xam ne lii moom lu war la ci diine nga ne warul xéeféer nga kon ku ci weddi benn foo kaafirun xéeféer la ndax su ñu ngi musu billaahi ci yàlla min zaalika ci xéeféer ndax mooy mbugal mi gën a métti ku ko def boo xasee dem àllaaxira jeex na safara te du fa génne ci balaa yu mu diine kon lu la waaye yàlla man a may te boolewul ci gëm yàlla rek xamoo dara yàlla yàlla musal ci kéeféer yàlla nañu yàlla téel téel miskin yi seen gëm yàlla yàlla téel ñu ñun miskin yi suñ capital mooy gëm yàlla gi yàlla bul ko jël in uridu al islam wastata'tu wa tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh